ben aspect bu important aussi bu ma waroon wax moy lutax tax ñu ni variant bobu mu indi li ñu ngi soga comprendre di yane mécanisme moo tax variant delta bi mën def li muy def. lolu dafa am mutation bo xamni da fay tax mu mën gëna gën a moy facteur numéro 1 bi. euh, facteur numéro 2 bi moy su fekkee ni nek na ti nit mom ni muy développer woo sa yaram dafay dafay gën a gaaw par exemple moyenne bi ñu am mooy moyenne peut-être six jours pour variant yu njëkk yi mais moom en quatre jours rek ñu mën nañ ko commencer gis sa yaram beneen bi ci ëpp solo nag mooy li muy nekk sa yaram li muy produire moo ëpp 1602 deux fois charge virale am que variant yeneen yi c'est-à-dire que ni mu ni mu bëree sa yaram de bëri ba nga xam ne loolu tax muy gaaw a wàllaate parce que non seulement day gën a gaaw a feeñ sa yaram mais day gën a bëri sa yaram et loolu tax wàllaate bi gën a gaaw et ça c'est important ñu comprendre yan mooy mécanisme yi vraiment par rapport ak lu tax muy gaaw a wàllaate noonu